ngir top sen chaîne Jazboul Mourid demal Google Tapez Jazboul Mourid bésul ben émission mu YouTube ci page bi nga abonné té activer cloche bi ngir am notification sa ñu dugalee suñu vidéo sen chaîne Jazboul Mourid di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jazboul Mourid mi ngi ci waar wi ngir liggéeyal mam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Cheikh Jëmb mom boko né jak rek waaru. Mhm. ndax li nit ñi bëgg ci aduna yépp moom da ci bëggu dara ndax da doon xaar bis bi mhm. motax tax dara mustafa nano mom ci lu jëm ci aduna lu dul jox nako Cheikh rafat xam ngeen ne koor gi nu genn rek jooni xar la joxe jooni xar daf doon waajal bis nak jili lim ci wax ma doon ko deg lu doyna sëkk ndax mom moy sama jëwriñ ndax no yag lool te yag and di liggéeyal seigne touba ci war wi waye bu ko top gënul la mm. fayul dalaa yeb mm. bu ko jox dalay nax mm. maamam Cheikh Ibra Fall nee na ku ma raw ci ñett yooyu laa la rawee sëñ Cheikh jëmb nag ñëw di modèle di santion ndax sëñ mu Ka dafa wax ne noobal ba engagé ba xeex ca guerre ba nuróowal ak siwil keroog payor bi sëriñ Touba joxe sëriñ Fallu ak sëñ Mouhamadul Moustapha ndigalul jumaa ci ku nekk xam ne na sëriñ bi lam ci dëlee woon mooy ku ci feeñ dootoo nëbbu mukk waaye ku ci nëbbu yi dootoo feeñ te wax firle man banaw bi naa rafet ña koy tabax yàlla jéggal leen moom na yemul ci àndoon ña ko doon tabax waaye kenn la ci woon bi ko waajuram joxee Sëriñ Falilu daf daan yenu doj yoo xam ne ca carrière ba buy dikk nit ñi dañ koy kar ne comme ah, faal nañ la nang la dimbale la le mu ne déedéet dama bëggul kenn di ma jot jottaleel sama yëpp sama digganteeg sodro wala sama digganteeg sa danaa def bu sonnee day yenn ko fenn taxaw tuuti ndax xam nga nekk ah, ak ba sonni naan doo ko sonni ñëwee ñu tabax jumaa ji it benn bis bu nekk saxaru yëg ndax baayam daf ko waxoon ne ko liggéeyu jumaa ji mën a jox seen fan bul ci doon nit jëwri ñu bu ko mooy defal lee ak toogal fee ak ëpp ko ci lépp loo ci def dee ak sa loxo bii ndax li ci taalib li ci taalibe yi bëgg rek moom nga war a benn bis nag ci safo yooyu ci la daanu bi mu daanoo Serigne Fallou def ci kiimaan gu mag daal moom Baye Moussa Diop ak sëñ Thierno Fall xam nga dañoo daanoon ci jumaa ji sëñ Moussa Diop moom xam ngeen ne moo daa yéene ñi faatu hmm. dañoo wax ne bi mu bi mu daanoo ndigg li ci boppam moo dam waaye sëñ Fallou bi mu ko tiimee da ko ne waaw waaw ci am turandoo waay maanaam turandoo wooye man xam naa ko dalas Diobum Baye Moussa Diop man xam naa ko ndax Baye Moussa sama xarito woon loolu hmm. waaw waaw waaw am turandoo waay ndigg li sëñ Fallou Baye hmm. am turandoo waay man turandoo wooye man xam naa sëñ Cheikh Jëmb miit ak sëñ Thierno Fall bi daanoo lam wax te Moussa Diop la wax ñi rek waaye waaye sëñ Cheikh Jëmb dafa am la war a liggéeyal sa maam Cheikh Rafal ñokket waay te liggéey booba yëg seegut kon sëñ Fallu mooy sëñ Touba waaye sëñ Cheikh Jëmb it mooy Cheikh Ibrahima Fall mooy Cheikh Ibrahima ba tax na nit ku mel noonu nag bu génnee àdduna jàngale nag ndax am ngërëmul maanaam ñeenti xalifa yi sëñ Touba mm. loolu yombut te ñoom kenn ku ci nekk làq na sa ngërëm. te bi mu toogee xalifa dafa am dafa am lu lu mu lu lu lu mu pratiqué loo xam ne dañ ñëwoon mënta nekk. mooy dafa bëgg a wax ne njabootu sëñ Tuubaa gi bu leen kenn yëkkati ceeb lépp nañ ko def ndaw. ah ñamu Tuubaa xam nga xam nga baat boobu muy moom mu nga xam ne moom innové rek indi ñamu Tuubaa wax ne bu kenn yëkkati njabootu sëñ Tuubaa gi ceeb ceeb ak yàpp moom na na jeex nañ leen andil ñamu Tuubaa muy ndawalu kes tuufee rek ak ginaar yooyu saaf ak misee ki nangam tey te bi muy toog bi muy toog dañ ne loolu du ko man waaye gis nga Sëriñ Tuubaa moom xultu wa ayaami isdarat umoosi wa fustu bil xaamusi fil xaamusi sëñ Tuubaa tayam june day gàccal démbam tey li ko yàlla may mu feeñ li feeñu du ko ëpp wasala lil xaq min al xaqil mubin lii qaada ma baana wa ma laysa yabis loo xam ne am na loo xam ne ëllëg rek waaye sëñ Cheikh jëmb moom mooy Cheikh Ibrahima Fall xar fan bi xar waaye nag suñu xel dal na ci sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue mi nga xam ne moo fi toogal tey ak Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina maanaam nit moom sëñ Modou Moustapha Fall toogal ko fi waaye mag mu toll noonu ci at foo ko gis der gi ne ci ndiggam wala nga xam ne kuy dem xare da ngay waaj kuy dem xare da ngay laxasaayu da ngay waaj da yor fett wala yor xeet wala nga takkaayu moom wane na ne fi ma jëm mooy der lay wane ne Cheikh Ibrahima ñoom len rek la moy ndigal lu joge keur seigne Touba mhm. dellu te sëñ Mor Aminta nag newon na mhm. li dàq am picc moy yak ndigal moy mhm. ah ak ya ak ya nee yoy di dàq picc moy yak ndigal nee ngeen fexé ba doon dom seigne mourad Aminta moom it ku ñaanal la na ngeen fexé ba doon dom dom mom boo doon kula laal wex dootu doon xal dootu doon wax Cheikh Rafal mi nga tax ba naat gi Cheikh Ibra moo fexe ba naat gi rëccut xam nga ab rëbb boo xam dañoo fexe ba naat gi ngay rëbb rëccut kooku ak Cheikh Ibrahima Fall ba mu mujj kon daal ñu ngi wax ne yàlla na ko suñu borom teeru fa mu jëm moom sëñ Cheikh jëm fii maq xadis li xëy na xañ damaliken muxtadir wane la kook maamam ji ak Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ak Cheikh mi ne woon sama taalibe bi yëpp bu ñu faatoo ndoo woon ci senn saa ci ay rew yu wuté ñu leen di sangandoo ci seetlu sa di leen sulandoo ci seetlu sa sëriñ bi nee kenn ku ci na dina la téwal ba nga defee ne yow rek ya jébbul woon ben naaru gànnaar ne fa am lu mi hésité ci xalam na wa lool nit rek nu mané lool naar bi ne ko sëñ Tuubaa woo ko ne ko diw mu ne ko labbay ko mu ne ko li wax dafa mel ne dañ cee nëgg-nëgg pal mu ne ko waa jaaxal na ma de genn nit yoo xamne naa teewal taalibeem yëpp bu ñu faatoo loolu daal bëggoon naa ku ma ko tekkil mm. mu ne ko jant ba ca gànnaar mm. ak jant bi ci njaarim wuute nañu mm. mu ne ko benn jant bi mu ne ko koy gisee ni la ko waa gànnaar di gisee mu yàlla ma may jant ba tiim ñu nii te kenn néewul sa morom xajal ma ci leerug jant bi waa gànnaar waxuñ ko yàlla moom danoo may boobaa lu ëpp waa melow jant ba ngir topp seen chaîne Jazboul Mouride demal Google tapé Jazboul Mouride bésul benn émission mu YouTube ci page bi nga abonné té activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugalee suñuy vidéo sen chaîne Jazboul Mouride di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter jezbul morit mi ngi ci war wi ngir liggéeyal mam Cheikh Ibrahima Fall.